fii ñuy teewle ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax ñu ngi fii ci kër Sëriñ Abdou Samad moom Sëriñ Abdou Khadir bi nga xam ne moom itam baaxoo na di dundal bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttalikoo Sëriñ Abdou Khadir di ñaan yàlla mboolem ñaan yin ci ñaan muy alxuraan ji ñuy jàng xasida yëpp yàlla na suñu borom àggale mboolem ñaan yi yëpp ci ak ruuxam di ko fàttalikoo ci anam gi nga xam ne itam ni lañ ko baaxoo defee muy jàng alxuraan nda ko noonu itam jàng lenn ca xasaayid Cheikhul Xadim ak yitam bernde mboolem ñi nga xam noonu lañu koy defee waaye itam di fàttalante léeg ak li nga xam ne mooy jikkooy Sëñ Abdul Xaadir ndax bis yu mel nii li ci am solo itam lépp mooy fàttaliku ci di waxtaani dund ki nga xam ne moom la ñuy waxtaani ndax loolu dana am bind yuñ ci mën a jàng rawatina jamono ji nga xam ne ci lañ toll jël leen ci seeni jikko da ko mën a méngaleek jamono ndax nit ki day àgg ci ay jamono yoo xam ne day mat nag léeg-léeg mu delluwaat ci dund ñi nga xam ne ñooy asalafu saalih ngir mën cee jële loo xam dana ko mën a jariñ te wax dëgg yàlla ba ñuy jàng dund ak Sëñ Abdul Xaadir loolu lañ ci mën a jànge te li ci ëpp solo itam mooy teg gi nga xam ne tegoon na ko tànkam ci sunna ak daaw ko jàngale na ko noonu di ko pratiquer itam ba lépp loo xam ni dafa wuuteeg njàngaleem sunna ci loo xam dañ ko indi mooy lu mel ni que ay biddaa te mooy loo xam dañ ko sos ci diine yi te bokk ci wala lu mel ni que aada yëpp ko ne xam nañ daa taxaw ci di ko xeex te bokk na liñ ci mën a jàng itam ndax dañoo toll ci jamono joo xam ni nit ñi ñàkk xam tax na ñuy jël lu bare bari ci ay xeeti aada ak biddaay yoo xam dañ koy dugal ci diina ji loo xam ne bokku ci toolal ko ne xam ne ne mooy la Sëriñ Tuubaa doon xeex ak mboolem nit ñu baax ñi te bi mu ñëwee moom itam ci yoon woowu rek la jaar bi mu ñëwee ci yoon woowu jaar doon leerala sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo tax Sëriñ Abdul Sëriñ Abdul Aziz Ad-Dabbaax yi nga xam ne ku ko xamoon la te daal na fi ñëw di siyaare tam léeg-léeg gis nañ bayit yu am solo yooyu nga xam ne seedo woon na ko ci moom wax ne ko dundoon sunna la ku ko xamoon la na ko ne itam ko amoon yërmande li ci jaam ñi la ndax ko ne xam ne diirub li mu fi nekkee mësta jóg ci loo xam dafay xettali nit ñi ak di leen jariñ kaana rahiman bi ibadillahi ridan yaum kulla man walaahu wala kaana rahiman bi ibadillahi nga xam ne ko amoon yërmande li ci mbindeef leen daa jàppale itam ndax mbooleem yi nga xam ne nit ñi mënuñ koo ñàkk def yu ci bari moom moom moo ci daa taxaw ñi nga xam ni bu fi nit mësaana jógee moom moo ko daa taxaw ko masaana am gént itam moom la koy yëgal nga xam ne moo daa dem di ko taxaw loolu moom diirub jamono Cheikh Mouhamadou Fadel la ci nekkoon ndax moom moo ko dénkoon mission boobu mu nekk ci bi Serigne Abdoul Ahad ñëwee itam na ko noonu la continuer loolu ba tey jox ko ko nga xam ne moom moo ko yoroon waaye teewul mu boole ji nag day jiite nga xam ne moo nekkoon imaamu ratib yi nga xam ne moo jaay moo daay jiite ci jumaa ji ajjuma itam lu mat ñaar fukki at ak ñaar yoo xam ne jiite na ko yu ci nekk mosu koo tarde benn yoon lu dul diir la nekkoon di aj màgg waaye mu nekkoon koo xam ni itam ku mësaan a ñëw moo xam muy mbokk mu ko jege moo xam muy ku ko sori itam la nga xam ni moo war ci ak rafetal kóllëre lépp itam e, da lépp itam noonu la ko daa doxale ba tey Cheikh Abdoul Aziz waxoon na bay di mel noonu bam naa si yaane indahu alqaribu wal baid yaxtarimul kulla li rabbina al majid moom dafa respecté woon ñëpp joxoon ñëpp wor ma nga xam du ja xàmmee ndax kii mbokk la wala boog ndax kii ku ko sori la kon loolu ba tey day wane ne moom dafa doon jëflante lépp moo teg ko ci njàngaleem sunna nga xam daawul def lenn ngir parparloo loolu ba tey itam ñu koo jamono ji mooy nit ki boo xasee ba nekk sa mbokkum ji leen moo amatoon looy parparloo kii sama mbokk wala du sama mbokk waaye lislaam jàngale mooy képp koo xam ne yéen a xas bokk jullit gi rek mooy dangaa war a rafetal sa diggante ak moom jàpp ko itam sa mbokkum jullit ndax ko ne xam ne loolu mooy alquran innamal mu'minuuna ixwatun fa bind yi nga xam ne mënees na koo jàngee ci Cheikh Abdul Xaadir bi ci des itam mooy fonk waxtu lool ndax ko ne xam ne ni jàmm bi itam dafa am lu ko suñu borom dénk te lépp itam ñu teg ko ci ay waxtu te waxtu wu nekk itam war nay fonk waxtu woowu rawatina li nga xam ne yàlla dala ko sant nga xam ne waxtu julli fu mu jotee lépp loo mënoon a jàpp nga bàyyi ko dem joxe li nga xam ne mooy farata suñu borom doog a dil siwaat loolu ba tey ko ci saxoon la ndax sëñ Abdou Khadre ku ko xam-xam ne nodd moom bu mësaan a jóg ak lépp lu mënoon nekk da koy dog bu ko defee dem joxe joxe ji farata ji ba ñëw loolu ba tey ñu mën koo jàngati jamono yi nga xam dañoo toll ci jamono yi téléphone jamono internet gis ñoo xam ne wax dëgg yàlla fa nekk ñu ngi ci téléphone yi nga xam ne mën nañ ci gont di ci xëy di ci yàgg lool ba léeg-léeg waxtu mën naa jot sax duñ joxe waxtu woo wala boog du nekk ci seen xel bu ko defee loolu na bu ñu delluwaatee ci dund ko mel ni nga xam ne léppam daf koo appliqué woon maanaam nekkoon nituk sunna nekkoon koo xam daf ko day jëmmal loolu dañ koy mën a jàngawaat ci moom ni nit ki ak lu mu mën a nekk ak lu mu far-far ba waxtu julli xasee jot wala la nga xam ne da koo war a defal yàlla lépp war na koo bàyyi dem def li nga xam ne moom la suñu borom moom loolu ba tey bokk na ci li nga xam ne dañ koy jàng wax dëgg yàlla ci dund ak Sëriñ Abdul Xaadir ndax moom li ko permettre mu toppoon sunna si yonente bi nekkoon ci doon ko dund doon ko jëmmal itam mooy bëgg koo xam ne bëggoon na ko yonente bi sallallahu ndax nit ka nga bëgg la nga xam ne mooy tegtal ba dëgg-dëgg mooy la moo nekkoon da nga ciy nekk waaye la ko safoon itam la ko doon dalay saf te ko ne ku ne xam ne ne moom ci loolu la nekkoon loo tax sax ci baatu ko googu mas nañ ko cee laaj daa ma ko ko masoon laaj daan ne ko waaw jullit bi ndax dana gis malaaka yi fii ci àddina mu leen waaw loolu de alquran saxal na ko ndax li alquran wax ne inna alladina qaalu rabbana allahu summa istaqaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu allaa taqaafu wala taxsanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ndax ne képp koo xam ne dem na ba yëg ci boppam ne ragalul ku dul yàlla nga xam ne lu yàlla bind moom ragalu ko mbindeef mu mën a doon ndax ne kooku la ko may loolu mooy barket gis bi nga xam daf koy gis euh, malaayika yi xam gis nag ñaar la mën naa nekk ru'yatul aynil mujarrada waaye mën naa nekk itam li ñu tuddee ru'yatul basira mooy nit dana def ci xolam leer goo xam dana tax mu gis loo xam ne ba mu ko gisee mooy tax dafay noppee ragal daal ne nag li li ko waral mooy malaaka yi nga xam ne dañ koy gis te lool li leen koy may mooy bu fekkee ragal nañ yàlla te nekk ci la ñu war a nekk tegu ci yoon wa day am malaaka yu wàcc ñoom naa leen yéen bu leen am leen lu ngeen tiit wala ngeen koy ragal na ngeen bég ci àjjana yi nga xam ne itam yàlla dig na leen ko ëllëg ci nite àjjana ngeen i bokk teg ci naa leen ñun ñi la leen borom booleen ndox lu awliyaa'ukum fil hayaati dunya wa fil aaxira walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nasalum na xafor rahim seeni béyte yi nga xam ne yàlla moo nu boole ak yéen te lu ngeen bëgg at nag àllaaxira yëpp da ngeen koy am loolu nag muy teraanga yoo xam suñu borom dana ko defal ñooñu àjjana ñi te ñooñu li tax suñu borom defal leen loolu mooy nekk nga ñu nekk ci yoon wa gëm yàlla ba pare mosuñ koo wàcc benn yoon nga xam ne ko boo doon wax aay bi na nga na boo doon nat Sëñ Abdou Khadre fii nga koy natte kon ndax daa bokk ci ñu nekk ci loola ngëm yàlla dëgg-dëgg ngëm ba noppi itam tegu ci yoon ba kon loolu bokk na ci li nga xam ne mënees na koo jàngati ci ay jikkoom mu nekk lu néew rek loo xam ne xëy na bëggoon nañ ko cee barkeeloo di ñaan yàlla mboolem njaboot yi nga xam ne ñu ngi fi ñëpp suñu borom taxawu leen te sàmm leen te bis bi itam ñu yàgg koo taxawu di ci fàttali nga xam ñu ngi ko ñaan yëpp itam yàlla na ko suñu borom nangu di si mboolem di sant mboolem site internet yi nga xam ne ñoom lañu àndaloon yëpp ci bis bi di rafetli seen taxawaay itam wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu bismillahi rahmani rahim bishrah li sadri wa yassir sallallahu وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن هذه الاحتفالات المقرات التي تقام في هذه المدينة هي مناسبة مباركة لما تشمله من صلة الرحم ومن التواصل والتواصي على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاعتصام بحبل الله وعدم التفرق وإطعام الفقراء وغيرهم مما يتم في هذه المقالات وأما الشيخ عبد القادر فهو علم من أعلام هذه البلاد الذي علم من أعلام هذه البلاد التي نشر فيها التربية والعلم رحمه الله تعالى فهو أحد بذور الدين كما قال العلامة المختار بن حامد واصفا أبناء الشيخ قديم بقصيدة يقول فيها ما ضل من ضل نحو الشيخ يرتحل تحجيبه يعملات نحوه ذلل حتى يحط بباب الشيخ أرحله حيث التقى والنقى والعلم والعمل إلى أن يقول حيث البدور حيث البدور بنو الشيخ الخديم ألا هم البدور بدور الدين لا أفلوا نعم والشيخ عبد القادر كان من هؤلاء البدور الشيخ الخديم نعم وولد هذا العلم في عام 1914 وتوفي 1990 بين ميلاده ووفاته قرابة 70 سنة الحمد لله تعالى ابتدأها بالتعلم كما هو يدب أبناء الشيخ تعلم القرآن في دار العليم الخبير بندام ثم التحق بخاله الشيخ بكبسو ونهل من معين علمه والتحق بمحمد دم الجارمي الجربلي كما هو اشتهر هنا ونهل من فقهه ليقوم بعد ذلك بالخدمة لما ناله من معروض الشيخ القديم الذي يقول فيه بالذكر والسنة والحديث وأدب لا ذهب موروث وقد ورث الشيخ القديم بإحيائه السنة في الدور التي أسس أو القرى كقرية بغداد التي صارت يبلغ ينتهي بنيان الطوبة إليها وقرية بستان وهذا العلم يقول فيه العلامة محمد بن أبي مدين العلامة المحدث محمد بن أبي مدين أجدت فأبديت الذي ظنت الكتب عن الغير لم يسمح به قبلكم لب فبنت طريق الهاشمي وصحبه ونهجه وأصحابه ما به يعبد الرب فأنت بتدريج المريدين للمنى وترقية من بعد تحلية صب طب ولا زلت صبا للمكارم والعلا ووالدك البر الخديم والدك الشيخ الخديم بها صب وقد أجمع علماء هذه البلاد كالشيخ عبد العزيز سي خليفة الحاج عمر سي على فضله وندبه في أبيات كان تقيا عالما سنيا إلى أن يقول وكان كالخديم في محبة خير الوراء يعني شهد له بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبالعلم والورع وتقوى واستواء القريب عنده والبعيد فقد أثنى عليه أيضا أحد علماء فوتا الشيخ عبد القادر نجم الخديم الحاشري حازم المفاخري ما إلى آخر الأرجوزة نعم وهذا العلم توفي في 1990 ورثاه العلماء من مختلف الأقطار ومن ما من الله تبارك وتعالى عليه به من المنن الاستقامة التي هي أكبر كرامة التي لا استدراج فيها وقد أم في الجامع الطبوي عقدين من الزمن لم يتغيب عن الجمعة إلا في حجه أو الجمعة الأخيرة التي توفي فيها وهذا هو محض الاستقامة والفضل وكان ورعا غير مخالط بأهل الأهواء والبدع بل منفرا منهم وكان من خطاباته أو من وصاياه أن أمر المريدين بالتمسك بالإسلام حقيقة وبالتراحم ما بينهم وبالتعلم والحرص عليه وجزاه الله تبارك وتعالى عن الأمة خيرا رضي الله تبارك تعالى عنه ونفعنا ببركته وبأمداده السلام عليكم ورحمة الله نرجو أن نكون في هذه الكلمة وإن كانت مرتجلة نكون قد بنى بعض فضائل بعض فضائل ومدائح هذا الشيخ رحمه الله تعالى ونفعنا به مرحبا